mbokk yi dal leen ci Limametti comme à chaque fois ñu ñëw ak yéen ci seen revue de l'actualité nek li nga xamni mo gëna fess ci xibaar yi fi jot a xew li ci gëna fess fës arrestation ki nga xamni mom moy capitaine Touré capitaine Touré nak japp nañ ko niki demb dal di ko fa fële nga xamni mom moy mooy LGI bu mbaaw dinañ ko gëna yaatal ci biir seen revue de l'actualité ñi nga xamni ñom ñoy wa M2D waron amal li nga xamni mom moy mooy marché tey daal dinañ koy annuler ci demande ki nga xam ni moom mooy xalif général des mourides loolu aussi dinañ ko yaatal ci biir seen revue de l'actualité suñu ci toftalee ñeneen xibaar yi nga xam ne xew na fi mu doon seen revue de presse ngeen koy am ci biir seen site d'information limametti point com ñu daal di koy dooree ak marche bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy waa M2D di mouvement pour la défense de la démocratie nga xam ne waroon nañ ko amal euh, tey ci samedi bi euh, ñu mujj ko nag annulé annulé bi nga xam ne annulé nañ ko moom mooy euh, dañoo daal di waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy Serigne Bassirou Mbacké Porokhane ki nga xam ne moom mooy xalif général des Mourides daal di koy yebal ñu daal di waxtaan ak moom nag bi ñu waxtaanee ak moom nag ci la ñu d'accord ne dañuy daal di puusandi li nga xam ne moom mooy manifestation bi mais am nañ nag li nga xam ne moom mooy ay càkkuteef yoo xam ne dénk nañ ko ki nga xam ni moom mooy Serigne Bassirou Mbacké mu war ko remettre ki nga xam ni moom mooy xalif général des ginnaaw loolu nag ñoom dinañ revenir ngir daal di wax wax ñi nga xam ni ñoom ñooy sénégalais yi ci seen lutte boobu nga xam ni ñoom ñi ngi ko jëmale ci daal di dëgëral li nga xam ni moom mooy démocratie fi nga xam ni moom mooy Sénégal kii di capitaine Omar Touré nag xam ngeen ne ginnaaw bi mu présenté li nga xam ni moom mooy démission am ci gendarmerie nationale demoon na fa li nga xam ni moom mooy Touba Touba daal di fay toog ginnaaw bi mu dellu see nag Dakar démb ni ki démb si vendredi bi daal di nañ koy jàpp arrêté nañ ko daal di ko yóbbu fa li nga xam ni moom mooy LG yi bu mbaaw foofu nag dina fa toog diggante 45 ba 60 jours ginnaaw loolu nag dinañ xool daal yi nga xam ne dinañ ko ko teg mën nañ ko wàccee définitivement ci li nga xam ni moom mooy gendarmerie ma ñu daal di koy radier

ñu daal di wax ci ki nga xam ne euh, mom mooy Bouba Ndour ginnaaw manifestation yi nga xam ne amoon na euh, semaine bi ñu génn fi nga xam ne moom mooy Dakar ñi nga xam ne ñoom ñooy manifestant yi nag épargne wuñ épargne wuñu woon fële nga xam ne moom mooy TFM ak RFM ngir mere gi nga xam ne mere nañ mere nañ ko ki nga xam ne moo ko moom di Youssou Ndour kii di frère di Bouba Ndour daal dinay àddu ci mbir mi ci émission jàkkaarloo moom mi ngi nakarlu bu baax yàq googu nga xam ne yàq nañ ko seen locaux yi mi ngi défendre Youssou Ndour ci seen kanam di wax ni ñoom waruñ amuñu benn droit ñëw di yàq li nga xam ne moom la defar leneen loo xam ne wax na ci moom mooy ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci mbir mi moom mi ngi wax ni il faut que justice soit faite maanaam ñu daal di jàpp ñi nga xam ne ñoom ñoo def ñaawteef yooyu maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo faat bakkanu ndaw yooyu nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci manifestation yi nga xam ne amoon na fi ginnaaw nag bi nga xam ne jàppoon nañu kële nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko loolu révolté woon na ñii di jeunes yi ba ñu wàccoon ci mbedd mi di manifester. ñu daal di jeexale ak sport wax ci ki nga xamné mom moy euh, Augustin Senghor nek président fédération sénégalaise bu football xam ngeen né da doon sako ngir doon euh, président CAF de confédération africaine de football ginnaw ci lolu nak limu mujjé doon mom moy premier euh, vice président ki nga xamné nak mom moom lañ tabb mu daal jité jiite kuréel di Patrice Motsepe Patrice Motsepe nak nek Ben sud africain ki nga xamné nak mom moy Augustin Senghor moom moo top di topp si moomu loolu nag ko am ñing ko doon amal demb demb ci vendredi bi fële nga xam ni euh, moom euh, Maroc voilà mbok internet yi loolu lañ leen lon tay ci sen revue de l'actualité nekkoon li nga xamni mo moo gënoon fës ci information euh, yu fi jot xew ñu leen di wax nak comme toujours ngeen continuer di top sen site d'information limametti.com ngir dara bañ leen a raw di leen jox dig dajé benen yoon ak yeneen i xibaar